am na ñoo xam ne dañuy yàqal di tudd yu yàqal di di jéem a salteel di wax non non loolu ñu tudd man euh, euh, intéresse ma intéresse pas intéresse pas sama yoon nekku ci ay gaz ak ay pétrole ñun daal l'essentiel sunu maire bi ñoo ngi koy ñaan doo déglu ma ñoo koy ñaanal gudd fan at wér yaram ndax maire bu mel ni Aliou Sall suñ ko amoon avant yi fi maire yi fi jaar suñ defoon li Aliou Sall def kon Géejawaay waxatuñu ko. mais ñi bëgg a ñëw tubaari kàlla Géejawaay léegi comme Paris. mais est ñu bëgg ñëw def lépp mu def. oh li Aliou def Géejawaay gars yi ñu def ko yombul. yoo xool Géejawaay léegi comme Paris foo dugg lamp yaa ngi takk tëli yaa ngi nii ah xoolal suñu demee ngoon doxantu fa xam ne léegi Géejawaay comme Paris ah comme tubaari kàlla macha allah. est ce que seen Géejawaay am nañ oh, a ngi liggéey. tubaari kàlla Géejawaay léegi comme Paris. alhamdulilah rabbil ngi doog am ministère ministère de la ministre la jeunesse waaw. kan waaw. Néné sunu jigéen bi. ah fii la dëkk fii la ministre la jeunesse. waay neex na di. waay weesu na neex. di nuyu Fouta Ba ak Béy Ba monsieur le maire ak euh, Sey maire Ndiarème Limamou Laye. ak Pape Mama. Pape Mama Andaw. ñoom ñëpp ak Baara Gueye kii Oil. ak kii nu tudd Assis Ndiaye. waa géej way la dañoo jëm ci bis bu mag moo tax ma leen di nuyu di leen soññu waaw dañoo jëm ci bis bu mag Baara Gueye kii ool Asi Ndiaye Baye Ndiaye tout Masata. Ah, Baye Ndiaye ci la bokk laa tëgg dëkk su ko tëggee géej way la dëkk man daal géej moomu géej Baye Ndiaye ne way laa wax ak Moussa Fall sama doomu nday Moussa Fall doomu nday saa kees xam nga benn affaire laa lay wax man euh, ñi tekki dara géej way bëgg géej way ñoom laay waxal ah. waaw si soo déggee may lim ñu la dama dina dem ci bis mag képp kuy doomu Géejawaay nekk dara Géejawaay nekk autorité Géejawaay ak ñoom Diaw Daouda Seck ah Malick Gakou ak euh, Ahmed Aïdara ay doomu Géejawaay lañ ñun ñëpp nañ leen ñëw ñu defar Géejawaay ñun ñoo bokk Géejawaay ndax lu nu am Géejawaay li ñu koy wut indi ñun suñu sañoon tey Géejawaay kenn du ko raw ci dëkk yi kenn du ko raw ci gox yi dañoo jëm ci bisu mag muy combat Lac de Guiers bi samedi le 13 di ñaan yàlla yàlla suturaal may ñu ndam li séddu guy te musal ñu ci cat ak làmmeñ mbër yëpp booloo nan ñoo bokk ndey bàyyi joxante nan loxo bala Gaye 2 moo jiitu ma nga ca kanam waaye doomu duubale ci kenn du moom ah ñoom guy gi saa kees marle euh, les de Elton euh, Alioune Seye ñoom ñëpp waa Papa Mbaye Papa Mbaye asi Papa Mbaye booy yëpp ñoom bu sooy booy yi ku ma limul ndax damaa bëgg ñu joxoon ta loxo ndax dañoo jëm bis bu mag waa géej way gépp màbb supporter yi nag na ndëkkee ji sat loolu du teel déedéet baax boobu moo baax mais loolu lépp ngir kan ngir Boy Niang si jar na ko ndax euh, dafay dugg dugg tuuti dugg dugg fi dugg fi dugg fi dugg te Lac de Guiers nee na fii lay gëj a duggee. est-ce que fii lay gëjee. barki Serigne Bamba Lac de Guiers ko wax. te noonu lay amee. incha allah ko waxee Lac de Guiers ko wax te noonu lay amee. xam naa ko. ah waa Pikine nañ seen cinal fondé lañ yor de xaw ma paanu fondé. fondé boobu Pikine lay yem. ñun lan cay naan naan nañ ko pare dootuñu su naan li si dañ koy këpp. fondé bi ngeen këpp. oh oh dootuñu su naan. fondé Pikine doy na na yem Pikine léegi wala mu yóbbu ko parcelle mbaa Fass. fonde bi dugg fii moom fonde dootu fi dugg moom dootu ñun du naan ko du fonde doy la dem yóbbu ko ñuy naan fonde ñun du naan fonde na ko yóbbu ñuy naan fonde ñun du naan fonde waay waay dañ dul naan fonde du naan kat fonde ñun yàpp la ñuy lekk ak i ginaar. Hmm? fonde bi daa mel ni xaw na fee yàpp. ginaar fii la fekk baax. géej gi de fonde la yor bu tàng. dugal mbër mu fekk ginaar jéey jox na la ginaar ay jéey daf maa jox ginaar ba mu mais booy ñang nga yaakaar ne daal mënu fondem bi yéen du ngeen ci lekk. non non doy na nee na ci nu fondelam teg. waaw nee la de guerre kaasam la ko war a jox. waay waay fu mu koy jox këpp na ci la këpp na ba ko tuddee la këpp. Ah. ba mu tuddee fonde ba la fonde ba këpp. ba mu tuddee fondé bala fondé ba këpp. lak daa mbër bu mag bu ko contact non loolu ay wax la yàlla may yàlla baal maa ngi jégul sax ndax fan yee passé sama yaram a tàng dem naa Esat benn journaliste laaj ma ba ma wax ci wax bu xaw a teggi ni sax maa ngi ciy jégul ndax nit ñi xamewul ma lool ndax loolu dafa wax bu yenu maanaa soo ko déggee soo ko déggee wax bu yenu maanaa wax bu yenu maana Balla Gaye 2 dina dëkk Pikine nekk doom Pikine ñëw di jàppale la de guerre Balla Gaye doomu nday Balla Gaye la Balla Gaye mooy gaayinam ok Balla Gaye mooy gaayinam ah waaye Lac de moo Baboy def wax dëgg yàlla defuñu nen baabooy xamul fu Lac de dëkk Lac de xamul fu Baboy dëkk baabooy xamul fu Lac de Guiers di entraîné billahi wallahi wataalaahi ku wax loolu da ngay wax la neex am na benn booy journaliste bu dëkk fii woy ñu koy wax Lamine Samba numéro 2 xale la nag na jàngiwaat. na jàng ndax affaire yi am na yoo xam du yoon ndax dégg naa sax temps yi ñoo ngi dem ay affaire bi dem na police man damaa dégg rek ñu dem na police wax du seetaan naa ko fan yi tamit dem ay police te yooyu yëpp ñoom daal na yem seen rek waa Pikine ñoo xam seenam ñun talu ñuy police ñu tal nañ leen sur combat bi ñu non non non liiru bu kenn dem police jàmm moo gën a wóor oh, ñëpp dañuy am jàmm waaye comme ni exemple dama ne la ñun talu ñuy police combat bi leen tal samedi incha allah rabbi waa Géejawaay gépp manko dem muy autorité muy mbër ñëpp ñëw isat jàppale mbër mi su autorité yi jënd ay billets ñu jox mbër mi ñu supporter yi ñëpp dem isat man de man lama gis dem Géejawaay la ma gis Pikine mobilisation ba doy na war ma seen roi des ñëw na ñoom euh, soq mbëri Pikine yi kenn desul ah booy ñang me moog waa këram seen yaram tàng na de euh, ñun tamit sunu yaram tàng na de xool ni may laa ilaaha illallaah te soo demoon si keneen beneen mbër laaj ko nii lay ñaqe suñu yaram a gën a tàng ñoom suñu yaram ñun ñoo gën a tàng ndax booy bi daf ñu dugg dugg tufi kon nag ñun suñu bopp ñun ñoo war a jóg ku deretu géej way daw sa yaram da war a jóg ku deretu géej way daw sa yaram da ngaa war a jóg booy bi de Balla Gaye 2 dina jóg guy gi dina jóg la dégg kii nu mu tudd Alioune Seye 2 waxi nopp euh, les 2 Elton tout ñun ñëpp ñoo ba pam ma mention spéciale mais wàllu teen la ku ñëw ci pind ba ngay euh, euh, nu mu tudd kii jaw kilifa nga fi géej way nga fi ñoo lay woo nga ñëw jàpp ci Lac de Guiers sa doom la ñoom euh, Daouda Seck tout Moussa Fall andaw ñoom ñëpp. mais nga woo ñëpp ku ñëw ci géew ci biti ngay. Ah, non non Seck man tamit xam nga tey dama a la benn. Lac ak Boy Niang ñooy ne ci géew. non pas loolu waxuma foofu ñu géew ba Lac ak Boy ba booy Lac de Guiers am na fulla am na fayda boo xam su duggee ci biir géew xam na la fay def kenn du ko wax la mu fay def magum jëmm la du xale bis bu ne am na ko Seck lii problème bi soo gisee may woo autorité bëgg ñëw ñu ñëw dooleel Lac de jàppale ko ci bis bi jàppale bi mooy lan ñëw jënd ay billets jox supporter ñu dem fees stade ba. mais ñoom ñaar ku dàq bëre. kan Lac ak Boy Niang. ah Lac mën na bëre de. ku dàq bëre laa wax. waxuma ay ku dàq bëre Lac de Guiers laa xam mën na bëre Boy ñaa du ma ne la mënul bëre ndax ndaanaan la waaye Lac de Guiers tubaarkàlla macha allah ndaa waay waay Lac de Guiers ñaata de Lac de Guiers benn defet la am te defet dañ koy laam-laamee Lac de Guiers benn defet la fi ñaata combat benn defet kon ku ne Lac de Guiers mënul bëre da ngay wax lu neex ah. léegi nag mën na bëri tubaarkàlla macha allah ndaanaan la kenn werantewul ndaanaanam tubaarkàlla mën na bëre boo ñaaw kenn werantewul mën a bëre mën a bëre moo tax mu egsi fii mu egsi père Pape Diop bos nag ñëpp gis naa ci ginnaaw waaw ñun tamit suñu nekk suñu papa ndeysaan suñu papa ja moo faram yàlla na ko yàlla xaar àjjana ay ku baaxoon géeja way fi baaxoon waaye tamit suñu papa yi fi nekk géeja way nañ jóg jàppale waaw père Pape Diop su jógee am na droit jóg ndax ñoom si ay doomam lanu fii ñun am nañ fa ay papa yu nekk ay Baye Balla nga fi Mouhamed Alé nga fi Père Daouda Fall nga fi Père Aline Fall fi ah ñoom ñëpp ñoo ngi géej way sunu papa yàlla ko yaara xaaraa jën ndeysaan mor mor faram ku baax ku baax waay ñëpp la boole woon uuf njaboot gi maa gis nga ma xamal la benn affaire ci Sénégal ñun euh, géejawaay ku nekk fa nga dëkk ngay tiitaroo te ñun géejawaay la nanu am moom la ñuy tiitaroo yaa ngi ñaq de. si non damay liggéey nag dama am doole damay liggéey ah. si barki Cheikh Ahmadou Bamba dama am doole damay liggéey. sa doole yàkkan la. non booy non non du ma ak yow booy bi laa doon pare booy wulli. <laughs> foo toll lu tax nga ne <laughs> waaye léegi yaa ngi may ma fatt daf ma lëjal. est-ce que la a daan. non non munu ko barki Serigne Fallou Mbacke munu maa daan. foo teg ba ne moom ci gàllaaj la ko teg non munu maa ko ëpp maa ko ëpp xalaat nee man damaa ragal tàppat laa man su ma ragal maa man ñaata nit laa fi dóor ñu daanu xoola kii maa ko génne làmb le dama ko duma ba juutal ko dama ko duma ba juutal xam nga ci dara yow sulum léegi nii dafa dóor ba rek bàyyi ma ñoon jox ma ko ndeysaan pas yéri yàlla na ko yàlla xaar àjjana boobu moo ma engagé combat bi ma dóor ko ba juutal ko jour ba arbitre moo ko jekkali yow li da nga yaakaar man nga koo def kan Vandam ma koy def loolu Vandam tamit dama Van Dame bi newoon Pikine barki Cheikh Ahmadou Ba maa ko génn làmb ji ma ko dóor ndax ni mu tolloon xam nga man ku duma rëyu ma woo di téye ay ponkal di leen dóor ñuy daanu man xoolal nee naa la ku ma yeb tey nga ma yeb bi ma defee accident bi wuli daa naa la ku ma yeb ma bi ma defee accident te li may liggéey musuma ko liggéey Balla Gaye 2 xam na xam na ci dara li may liggéey Alioune Seye 2 xam na ci li may liggéey man je connais très bien Pape Niass sama doomu nday sama xarit borom golf maa ngi koy ziar non non man damay liggéey damay moo ma yor moo may entraîné Philippe nekk géejaway di jàppale zone su géejaway bi Philippe ñoo ngi koy gërëm di ko sant moo may entraîné guddeeg bëccëg man lépp laay damay jum. mais est-ce que loxo bi doon surum le mu daanu mu ngi fi. barki Cheikh Saliou Mbacke tey la waalo gën a aay ku wedd laajal bëkk Dembo Ndiaye Balla gay bu may jéem a kii entraînement waaw dafa ma doon tese xam na ni am naa dara. loo ko def non non non man xam nga ni Balla non non waxuma maa ko def. waxuma maa ko def de dama ne la dafa doon testé bi ma xool non non non dafa am booy yu taxawoon ay ku mel booy sagar benn sagar benn booy xam nga sagar booy bu big boobu di ma jéem jaay estorom moo leen dafa am doole. Balla Gaye taxaw na teg naa ci cent mille cent cent mille ne taxaw na teg na wóolu na ma. xam waaye ma noo def booy ba ko jël kan. ba ma ne daj ko dóor mu rëpp. nga booy bi yow sagar mooy lom foor. maa xam lom foor gis nga ni mu toll. lom foor nga dóor mu wàcc. dóor mu rëpp booy bi dama ko dóor mu dëpp Balla Gaye taxaw fekk Balla Gaye ngi taxaw Balla Gaye teg na sa teg na cent mille Balla Gaye yëkkati ñaar fukki junni teg ma dóor booy mu dëpp Balla jox la cent mille waaye yow yaa Balla xam nga li ma yéene moo ëpp loolu yow ñaanal ma rek oto bi ñëw jàmm ñaanal ma sama oto bi gis nga dama lay xamal benn affaire euh, Père Bourkhane loolu mu wax ci Lac de Guiers Père Bourkhane moom daf ne maanaam dafa seetaan lak mu ne wuy juróom yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana daf ne woon ko muy attaqué yaa ngi dégg waaw ma ne ko nag est-ce que du da ngeen ko bëgg a pièce wala waay waay loolu lépp pièce la affaire wu ki mag la ñuy jéem a jaay affaire u xelu mag rek père Bourhan dafa nag ñoom ne na du pièce wut na pièce bëri jóge Lac de Guiers day bëri combat bii di ngeen gis Lac de Guiers bu garaaw Lac de Guiers i kii bak nu mu tudd isin in bak is bak is bak Lac de Guiers lii is bak di ngeen gis Lac de Guiers is bak le 13 samedi incha allah is bak ñu bak lépp xañ na ci man maa la waxoon ñuulu bak si bak lépp xañ na ci samedi le 13 incha allah rabbi ay waay maa ngi tàllal loxo. waa lu ak sunu maaraay sama yaay ja ca Angleterre ndeysaan. lépp si njaay di amatul mbay si njaay di mbay si indi na lu bees tàq. lu mel na ñun dinañ fecc fecc mi. waaw ne booy du mën a fecc. waaw dinañ fecc bi daan daan bi. indi ko waa géej way drapeau bi. waaw ndax Aliou Sall lañ tuddee drapeau bi. lu mbay si lu mbay si njaay di tëgg ak lu ngeen kooku xaaral après di ci xam dara ci kanam tuuti laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah yàlla na yàlla suturaal ba samedi yàlla may ñu la dëggee daan am booy ñaa jële bu set wécc bu amul benn werante ndax coow li dafa bari combat bi coow bi dafa bari. ban coow ci non xam nga coow li dafa la dëggee yaayam ji yàlla na ko dëddoo jàmm yàlla na ko yàlla xaare àjjana per Burxaan loolu mu wax. su la de guerre doful magum jëmm la xam na li muy def ki kenn du ko wax li muy def ci duggee ci biir géew bi l'essentiel daal di gis la de guerre ñuulug bak isbak alhamdulilah isbak isbak di gis la de guerre isbak di gis la de guerre bu bees tàq tàq ndax combat bi am na fu mu ko teg te combat bi dañuy jar te lim bi la de du ci bokk. Ah. waaw. Ah. j'arrête j'arrête j'arrête j'arrête doy na doy na doy na la de guerre j'arrête national loo leen di wax. ah cam ay sunu gaynde yi Sadio Mané. waaw. Euh, benn maaraam sama xarit la. muy maa ngi koy gërëm di ko sant sama sëriñ la kooku. waaw sama sëriñ la man may tamit gasam. <laughs> Sadio Mané bokk sëriñ. waaw waaw gasama sama sëriñ la Sadio Mané ku baax la. yàlla ko yàlla jàpp nan leen ñaanal joor yi ñu indi coupe bi. tabax Sadio sama waay la at Kara. Kara Mbodj Kara Mbodj bu mag ba. waaye waay ak baaxoon ci waaye nañ mi ngi ñaanal jour na ñaanal jour gis nga kii nu mu tudd Sadio Mané dañ ko ñaanal te bàyyi wax ju sew jéeg lu suuf di wax ratatat ji mbàcc mbàcc jéeg wax ju sew da yàq euh, sénégalais tey ji équipe bi su indee coupe bi ñan la ko indil suñu réew day naat Sénégal day naat day naat ndax tey ji booy am nañ fugg bi bëgg nañu waaye dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ci tuuti di yàq waaw. na ñaan rek moo gën. voilà loolu moo am solo na ñëpp ñaan ndax ñii suñuy rakk lañu ñeem ñi si des ñuy ñaan ñoo seen i doom lan nan leen ñaanal ñu indi coupe bi suñu waa Sénégal jëm ca kanam Sénégal jëm ci kanam senegal naat waaye soo nekkee ci tuus yi demoo rek yóbbuwul la wala tey nga jiite woon fi équipe bi ñu wàcce la nga nekk ci tuusi di yàq wala nga nekkoon jour jëluñu ñu nga nekk ci tuusi di yooyoo fi bari wala jëluñu sa doom ñu sa jarbaat nga nekk tuusi di yàq c'est pas normal am naa benn booy bu ñuy wax laat tam nekk Qatar jour la Aliou Cissé na xool booy boobu. Ah, yaa ngi bëgg a woon sa booy. waaw waaw waaw soo ko wax booy non dégg Aliou Cissé kay bàyyi ko rek ku ku mën a ñëw. ku ko neex na woo moo xam na liggéey liggéey bi ne ko teg ci yoon daal. Sadio Mané Sadio Mané ban club la ne. Liverpool. Kalidou Koulibaly. yow Sadio Mané bi jël coupe bi euh, coupe de Europe fan yi passé ah ligue des champions bi dimbali ma yow la wax sama booy bi laat tam nekk Qatar joueur yi nan leen ñaanal joueur ñu indi coupe d'Afrique bi Sénégal wuy ci li ma bi nationale laa la wax nii fi ne damay déglu ma bul ma laaj ci man joueur yi bi seen yi laa bëgg a xam non club yi man këruma club yi ñu nekk Naples xam nga mooy fan Italie ah Italie waaw am na. Kalidou Koulibaly ay fa nekk Italie restaurant Mama Dior sama seexe booy nekk Italie. Diao Baldé Keita fu mu ne. Diao Baldé Keita ba nu si ah. NTA. Ah. NTA. Inter de Milan. wax nga waaw Inter de Milan ba xool bul dugg. Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr ban club la nekkati sax yow. waxate non damay fàtte ban club la nekkati lamb jee may rey léeg-léeg. ren fan nga wax ren. ren waa ren la nekkoon. ah Lens. France France ren la bokk ay sàll ngaari sama gars yi ca France hmm? saa bu sëñ Mansour gars yi ci sama gars yi. lii Gomis ah. Abdoulaye Diallo. xoolal si équipe bi daal bu lu may laan nan ñaan ñu indi coupe bi Pape yow ñoom euh, booy yow laa wax nan ñaan ñu indi coupe bi te bàyyi li may wax si clair. Coupe d'Afrique bi ñaata équipe ci bokk. ah kii yow ma yow kii du ma gudd. Eh, eh, ah, damay laaj xoolal arrête ah. dama lay wax waaye équipe nationale euh, d'Afrique ci terrain bi. non Coupe d'Afrique bi ñaata club ci bokk ñaata équipe ci bokk. 30 lan ma xool 30 la fi mu ne ah 36 non non 26 ñaata toog fi ne parce que euh, génn nañ premier tour yi 16 euh, euh, toog na. 16 moo toog fi mu ne premier tour yi. fi ne ñoo ci dóor mu toog yi. suba ñoo war a football. mercredi ku nuy footballal ñu. équipe ah waa ñooñu ay lan lan sax ñooñu. ay doomu aadama lañ comme yow. ñu lan de. waaw ba tey waaw. yàlla na ma yàlla musal ci ñoom yàlla nañ leen dóor nan bene waa bene yàlla nañ leen dóor suñ fa jógee suñ jógee ci benn équipe ba ñuy amaat yàlla nañ leen muy muy muy demi final suñu jógee dem final jël coupe ba indi ko Sénégal. Tunisie wala Madagascar da ngay amaat kenn. xoolal sama fu duñu dara ñii ñun ay gaynde lañu nekkuñu ay muus nekkuñu ay jënax ay gaynde lañu booy ay gaynde booy daal xam nga lan moo leen di jàpp léeg-léeg gars yi nekk ci douche rek di jéem a yàq ñun jëlu seen doom yi jëluñu seen jarbaat yi ñoom dong ñoo fi nekk di yàq ma laat sama jour ba ca Qatar yàlla na ko jël